ma ne gongo lu ñu wax ma gëm ko bu ñu ma waxee appel à candidature ma doyen damay dépoussiérer samay samay samay documents samay bagages j'y vais je dépose non non man non non perception bi nga am man d'accord ah, mais nit ñi loolu lañ gëm ne xam nga ñun ñun moom il faut nous parler en français en français au premier degré d'accord xam nga yow en tant que citoyen waaw am na lu la intéressé ci ñii lu ñu woote waaw jub jubal jubanti. Mhm. en résumé. Mhm. am nañu projet. dans ce projet nee nañu comme ni nga waxee wax nañu ci kàddu que dañuy def appel à candidature nee naa la boo liiree projet bi man c'est bi lu mhm. ils ont dit certains des postes. ils l'ont même communiqué de conseil des ministres. loolu la ñuy wax maintenant yow Sénégalais bi lan moo la intéressé nañ ko def appel à candidature ñu jël koo xam ne wóor na la jàng na am na xam-xam. mais jublang la mais tey koy waxal yàlla rek poste ministère man de en dama vivre sama sama sama carrière politique je n'ai jamais vu un gouvernement aussi consensuel Sénégalais yëpp ne ah, ah! ñëpp d'accord te am nañ ci yaakaar yaakaar bi laaw yaakaar ñu defee direction générale directeur yi ñu def débat bi yëpp lan la kan waxul compétence nit ñi c'est ce lu ñuy wax neewoon nañu est-ce que loolu détail la façon bi la façon bi baax na xam nga muy baax ñi jël yépp ils ont du mérite dans aucun pays du monde amul benn gouvernement buy gagné te doo gagné avec tes hommes. Mhm. doo gouverner avec ses hommes. tu gouvernes avec tes hommes. yàlla na nekk nag ay hommes de confiance deuxièmement gis nga appel à candidature boobu am na pourtant. Hmm. prends les postes de souveraineté c'est pas des hommes politiques. ok appel à candidature. ba léegi waxuñ ñoom naka la koy defee est-ce que ñoom sax defuñu appel à tànn jox ko jox ko oui oui ils ont reçu des CV hein ils ont reçu des CV ñun ñoo xamul xëy na comment ils ont fait parce que tey boo jëlee intérieur jël forces armées jël affaires étrangères ku mel ni Yacine ku ko xam-xam ne sur le plan international ñu bëri sax xamuñu ne politicien la jël yenn ministre yenn ministères yi tu prends des directeurs ñu nga wax puis fa la nit ñi juumee xam nga ay directeurs ay c'est des postes c'est des managements euh, administratifs c'est pas technique. Mm -hmm. j'ai entendu un débat pour parler de Cheikh Bamba Dièye à l'aéroport mais c'est vrai <laughs> Cheikh Bamba c'est un ingénieur. Mhm. il fait partie des meilleurs. mais Pape Alé am na am na tous les postes yëpp moom vraiment les gens ont été am na am na benn société bu muy gérer muy RTS. muy société boobu muy keneen donc am na expérience gestion d'une société. en tout cas deuxièmement xam nañ ko ci rigueur intellectuelle ok xam nga ah, Pape Alé Niang ku jege Khalifa Sall la man dégg naa waa kër Khalifa Sall du sama classe ñu koy attaqué. Mm-hmm. et pourtant c'est un ami de Khalifa. Mm-hmm. mais gis naa ne bu ju bu dara amee mooy comme li ñuy wax Guy Marius Sagna rek nee naa ko ñu ngi ko ab opposition so Sonko ci lay bokk commencé na question question écrite yi. Mm-hmm. bi Sonko faree ba léegi dafa gum na trente ou vingt. <laughs> pour wax la ne y a des gens yoo xam ne da nga leen di nangul ne. ils sont dans le sang. ils sont ils ont des principes. c'est chance man am Pape Alé foofu RTS. gëm naa ne RTS na changé. war na changé de. maintenant gis nga man gëm naa ne gis nga ñii ñoo gën a conscient mën nañ jox que buñ leen jàppalee ils vont réussir.